responsable de la plateforme bi nga xam ne dañoo de la de la démocratie mën naa xam ne li ma waroon a wax yëpp li ma précédé wax et cela ne m'empêche pas on est dans un combat démocratique bu ñu waxee front y a d'abord idée de refus la ñuy bañ li bañ mooy lan li bañ mooy violer nos constitutions rendez-vous bi nga xam moo gën a am solo dans une démocratie mooy seen rendez-vous du peuple mais aussi ñi nga xamante ñooy laaj réew loolu nag su fekkente ne dañ ko def biir constitution tëdd ko fixé ko benn taxaw daal ne loolu du am je crois que en ce moment a ak peuple bi nga xam ne ñoom ñoo ko joxoon ay pouvoir moom mënut a toog lu mel noonu nag combat la boo xam ne ça concerne tout le monde ce n'est pas un problème de chroniqueur ce n'est pas un problème de journaliste ce n'est pas un problème de politicien mais ça concerne l'ensemble des Sénégalais le 23 juin bi mu amee tout le peuple s'est mobilisé Abdoulaye Wade tey aussi le peuple se mobilise mais ñun aussi dañu jàpp ne dafa am loo xam ne dañ ko cee mat sëkk loolu moo tax teg front bi pour mën a aussi participer au combat démocratique fekk ci nag ñoo xam déjà ñoom sax ñu woon ci terrain bi mooy ñoom bii Babacar Diego il est vrai que ñun à travers nos micros et nos toujours aussi ñu ngi pour vraiment la promotion de la démocratie mais tey dafa toll boo xamante ni il faut que ñun dem ci beneen sëñ beneen étape étape boobu mooy lan maintenant fësal na suñu bopp réellement pour wax ne on est le projet même parce que aussi Macky Sall la doon bañ démb mënu ko mënu ko nangu tey c'est pas possible Cheikh Bara l'a évoqué tout en 2012 bi ñuy waxee ay waxu report il était farouchement opposé à cette idée donc du moom la mu doon bañ démb boo ko nangu tey le peuple farouchement danañ taxaw aussi combattre fii na sa xel dal éventuellement ñiy menacer et jàpp man de tout temps man depuis mille neuf deux mille ba tey jii ñu ngi may menacé ñu ngi may traqué loolu moom d'ailleurs j'ai payé de ma liberté j'ai fait un mois de prison mais loolu loolu loolu du lu grave je crois que démocratie moom boo ci nekkee comme yenn combat yi soo ko engagé waroo ci bañ sax sa bakkan sa bakkan des parce que loolu c'est un combat noble et parce que c'est un combat démocratique pour le peuple donc tey mu nekk loo xamante ni l'ensemble des Sénégalais dañ leen di woo pour ngeen mobiliser wu parce que il s'agit du destin du Sénégal du destin du Sénégal parce que bu fekkee ne dañu bëgg a bàyyi nit constitution parce que qui peut le moins peut le plus ku la yokkal benn fan bu la neexee demain nga ne noonu léegi je vais encore remodifier la constitution ba pare yokkal donc am na loo xam ne en démocratie c' est inacceptable inacceptable on peut pas créer sa propre crise ba pare bu ko jël teg ko ci kaw nit ñi pour en prof pour profiter ci ne da yokk aussi sa mandat présidentiel ce qui s' est passé à l' assemblée nationale Et le principal problème aujourd'hui de ce pays, c'est son Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 1962, le premier coup d'État de c'était les députés à l'Assemblée nationale. L'Ikhawatfi, encore aujourd'hui, ce les députés à l'Assemblée nationale. Ça, ça veut dire que l'Assemblée nationale, nous, l'Assemblée nationale, nous avons un genre tard Parce que président, il n'y a pas il passe par les députés, députés, ils ne peuvent pas Mais là aussi, il ñoom ñi nekk assemblée nationale le peuple bi ñoo fa teg président bi aussi il faut qu'il sache que peuple bi moo donc dafa loo xam ni tey su fekkente ne moom daf ko bëgg a def parce que simplement am na lu muy craindre ou bien ci bakkan ci euh, en tout cas ci bëgg-bëggam la ko bëgg a defee loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu et c'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui nous sommes mobilisés pour nous mettre en face de toute personne qui veut violer aujourd'hui la démocratie ces histoires de dialogue ñu wax yooyu yoo xam ci dialogue man jàpp naa ne sax quelqu'un qui ne fait plus partie du jeu yow je crois que mënatoo arbitrer nga dialogue donc bu ñuy wax wax dialogue ça c'est-à-dire ça nous importe peu suñu combat aujourd'hui notre combat c'est faire de sorte que les élections l'élection se passe à date due et aussi que à partir de 2 que le président puisse faire sa passation de service ñaanal ko mu dem ki ko war a remplacer la place à dire passer ce délai il met maintenant le et c'est ça qu'il faudra éviter parce que crise moom su amee kenn du ci mucc kenn du ci mucc ça il faut qu'il le sache crise bu amee kenn du ci mucc ñi ñuy wax fii yëpp pour l'instant c'est de l'apparence la vraie crise c'est le jour où il doit quitter ce pouvoir et et qu'il ne le quitte pas te je crois que moom en ah, s'il en tout cas su fekkee ne am na lu ko dese ci bëgg réew mi il ne doit pas nous pousser parce que nag réew mi jaran jaral nañu jaral nañu lu ne suñu bakkan jaral nañu ko li De Gaulle doon wax naan la révolution n'est pas un dîner de gala c'est-à-dire que révolution moom boo ci dem bul ragal nga dee man loolu mooy sama principe bu ci ragal a dee mën fruit yi mën nga ko bañ mais l'essentiel c'est aussi fruit na say doom ak say sët bu ñu ñëwee tu puisses mais au moins ton nom restera dans l'histoire parce que tu auras participé à un combat démocratique qui a livré ses ses résultats rek lañ ci am amu ci donc réew mi jaral nañu C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous appelons l'ensemble des Sénégalais à venir rejoindre ce combat-là. Il est vrai que déjà il y a eu am na ay aussi participer à ce combat-là de la façon la plus noble de la façon aussi la plus démocratique. C'est la raison pour laquelle encore une fois au-delà même des journalistes yi ñu ngi ce combat-là. J'aurais dû même commencer par jaajëfal leen vous les acteurs de la presse. ba pare masawu ñi nga xamante ne dañu loru ci événement yi amoon passé jaale ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan mais aussi nos consoeurs nos confrères yi nga xamante ne ils ont été brutalisés par les forces de défense et de sécurité ñu leen di masawu et je pense bien que aujourd'hui la CAP ou bien le SYNPICS doivent se saisir de cette affaire-là parce que ce qui s'est passé inacceptable et donner une suite judiciaire à tout ce qui s'est passé su loolu amul aussi je que d'autres mouvement dinañ jël loolu en charge parce que aussi c' inacceptable de laisser chaque fois sur le terrain des opérations des gens qui sont là pour livrer l' information ñu leen di brutaliser parce que ñu koy def aussi je crois que ñoo ko parce que si on peut laisser un journaliste blanc sur le terrain muy def liggéeyam correctement nga ne yow kii parce que que loolu parce que il faut le brutaliser quand c' un blanc tu le respectes au nom de quoi moi je crois que le métier du journaliste il faut laisser les journalistes faire leur travail correctement loolu man sama principe la ci man et je crois que aujourd'hui su ma ko dee wax xam naa bu baax parce que li tax man j'ai fait la prison je sais que parce que je me jure d'une liberté dans mon dans ma profession c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Rebeuss pendant une trentaine de jours et ça je ne le regrette pas et je dis que si c'était à refaire je le referais parce que ba léegi te la ma nekkoon ci laa nekk je suis dans un combat tooñu ma sama tooñu tooñu ma dem yéen aussi jàpp ne ci li ngeen nekk lu ne mën leen ci fekk lu ne mën leen fekk vous avez opté de faire ce métier là c'est un métier à risque amul xaalis amul leneen mais c'est un métier à risque c'est un métier noble donc jaajël jaaf jaajëf leen ci di teesuwaat un sur l'objectif vraiment de ce de ce a eu plusieurs mouvements yoo xam ni chaque fois dañuy constater sur le terrain à un certain moment le combat fléchit et je crois que loolu dafay yàq li nga ardeur bi nga xam ne moom lañ leen ñaax ñun nag on ne vient pas en deus ex machina comme on dit ou bien en sauveur de qui quoi que ce soit mais tout simplement pour essayer de mobiliser les énergies ba pare faire face à cette forfaiture bi nga xamante ne déjà am na et qu'on veut perpétuer au-delà même du de loolu moom je crois que c'est un combat boo xamante ni c'est un combat citoyen c'est un combat démocratique qui requiert l'ensemble des énergies et l'ensemble aussi des forces vives de la de la nation donc loolu il que nit ñi xamee ko noonu xam ne li ñuy nii on ne fait pas pour un parti politique parce que ce que l'on fait là ça les partis politiques et je dis que même des gens yi nga xam ne ils sont du pouvoir ils doivent rejoindre ce combat là parce que la constitution c'est la constitution des Sénégalais c'est pas la constitution d'un parti politique c'est pas la constitution ñuy wax ne clause d'éternité la mooy loo xam kenn mënu ci teg sa yow nga ne nga but ay contournement fexe ba violé ko ba pare bugg avaliser ça c' est et c' est là conseil constitutionnel c' de retoquer cette loi là parce que c' est une loi anticonstitutionnelle c' est une loi inconstitutionnelle c' est une loi cest qui qui ne respecte pas du tout la démocratie comme que nag ñoom on les appelle les sages parce que bu fekkee ne dëkk dafa nekk au bord l' embrasement nga lii mën na indi dëkk bi foofu je crois que foofu la preuve de sagesse jël seen i responsabilité daal di retoquer cette loi là bu ko fexee sénégalais yi def la fa ñu war a def aujourd'hui tous les sénégalais mais cela n'empêche pas que pour l'instant ñun combat bi ñu war a nekk ñu mu ci ñu ngi ci ñi nekk aussi dans les partis politiques combat yi ñu war ñu ngi ci nekk dans les ngi ci seen combat donc que vraiment le président de la république revienne en tout cas sur sache que li ñu amoon ak moom cest dire contrat bi ñu amoon ak moom jeexul On lui a confié le pays pendant 7 ans, on lui a donné 5 je crois que c'est là où ça reste. Maintenant, yow nga bëgg a taxaw nga ne yéen da ngeen may joxoon na mën na may yokkal sama bopp loolu gis nga fu mu am rek problème am na fa l' exemple du Niger est là aussi de de de de de la Guinée est là de la Côte d'Ivoire est là donc je crois je ne crois pas que ce pays là puisse en arriver quand même à ce second là loolu aujourd'hui duñ ko et je crois que képp koo xam doo ko doo ko nangu loolu nag ça transcende encore une fois l' ensemble des partis politiques dafa jéggi citoyen dafa jéggi parti politique yëpp loolu c' est l' des citoyens de ce pays ñoom la combat ñoom la combat bi donc pour di leen on a érigé euh, on a élaboré une plan d'action et on a déposé une déclaration de rassemblement à la place de la nation pour le vendredi de 15 heures foofu la ñuy njëkk a commencer suñuy action on ne demande pas une autorisation on fait une déclaration tout simplement parce que c'est ça que nous exige la loi on a fait la déclaration donc que les gens sachent que le premier jalon bi ñuy poser mooy nous allons nous rassembler là-bas pour wax ci li nga xamante ne mooy lañ moom la ñu war a ba ñu war a a am ba lii président bi ma bët ñu baaree ko bara bara parce que su fekkente ne dafa bëgg a entêté wu ak ñi nga xamante ne ñoo ñoo ko wër di ko wax pour mu continuer dans cette direction là il va vers l'impasse ce qui s'est passé hier pratiquement que ça soit au niveau de de, de la communauté internationale même organisation yi nekk fii Sénégal yëpp tout le monde tire dans la même direction et je crois que loolu su ko xoolee xam na ne actuellement il a commis une erreur def erreur nag ba pare arrière ci je crois que loolu amul gàcc gàcc amul ci mais s'il veut maintenant persister dans l'erreur et c'est là où il va droit dans le mur actuellement c'est notre encore président jusqu'au et je ne crois pas que on lui d'aller droit vers le mur donc qu'il se ressaisisse qu'il revienne sur terre et qu'il sache que le contrat bi nga xam ne moom lañu amee woon ak moom ce contrat là finit le deux et qu'il fasse le tout pour organiser des élections transparentes en date du et que maintenant le Sénégal Sénégalais yi seen wàllu bopp ku ñu bëgg a transférer en tout cas jox pouvoir bi ñoom dinañ lay démocratiquement pouvoir bi mais il n'appartient pas à quelqu'un de nous imposer sa volonté surtout quand il s'agit de diriger ce pays là loolu moom c'est inacceptable et si maintenant les Sénégalais dorment toog bàyyi ko ci li ko neex ba mu dina yóbbu élection yi le 15 15 décembre ce qui est sûr et certain kon jàpp leen ne dans d'ici 15 président bu bàyyi parce que dans ces discours une fois taxaw na fi naa ne bon cette de limitation des mandats sax léegi pratiquement amul fenn et cetera et chaque fois il donne le cas de l'Allemagne que ce qu'ils ne savent pas c'est que l'Allemagne c'est une démocratie parlementaire c'est une démocratie parlementaire en plus il avait fait une interview à Afrique je crois en mai 2022 en disant que bi ñu koy laaj moom son histoire avec la présidence de ce pays-là c'est loin d'être terminé et je crois que c'est ce qu'il est en train d'appliquer loolu mu waxoon noonu gënnuti ko tey jii mais que la seule valable c'est l'opposition que les citoyens vont lui faire face parce que aussi les citoyens sénégalais en tout cas n'accepteront jamais qu'un président quel que soit ce président-là se donne la liberté la latitude de prolonger son séjour présidentiel on fa la il n'a qu'à arbitrer ces élections de la façon la plus démocratique bu su boobaa kii gagné gagné mu jox leen ni mu dem toog mais maintenant vouloir nous plonger dans cette crise parce que cette crise il a toujours souhaité chaque fois dans ses discours da ngeen doon dégg le chaos le chaos le chaos le chaos ont toujours compris qu'il voulait ce chaos là et Sénégalais ñoom toog jël seen carte toog le jour J maintenant le chaos ne va pas. il crée sa propre crise et il veut le Sénégal bi ñu ko parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom ça n'appartient pas à un président ça n'appartient à personne ça appartient à l'ensemble Sénégal kenn du nangu dëkk bi ñu koy mettre dans une situation de crise mooy yenn suuf si différent bi ñu ko am li mooy de la façon la plus démocratique nous lui ferons face nous lui ferons face pour dire que ce projet là c'est un projet antidémocratique inconstitutionnel donc nous ne ferons pas avec les moyens yi nga xamante ne ñun moom la ñu loi réew en tout cas sur loolu daal laa bëggoon euh, daaneel di santaat encore tous les journalistes di leen di leen aussi vraiment l' ensemble des parce que y' a beaucoup de sénégalais yoo xam ne nii situation bu nekk nii naqare na leen te peut-être xamuñu suñ koy jooyee donc je crois que ça c' est c' occasion pour venir nous rejoindre vraiment dans cet élan populaire là di jaajëfal aussi bon l' ensemble ñi nga xamante ne suñu invité yi nga xamante ne ñoo ñëw vraiment ñëw teg si ñu bokk ñun aussi waxtaan bi bokk ñun xeex bi nga xamante ne moom la ñu parce que ñoom déjà ñi ngi ci xeex bi ñun aussi on a fait que jouer notre partition par rapport à cela di leen sant di leen gërëm ba pare di leen jox rendez-vous euh, ah, euh, donc comme ni ñu ko waxee rek ni ko Serigne Saliou waxee dañ ciy sopaat lu ndaw rek mooy euh, ni mu ko waxee place de la nation la fond bi di woote incha allah rabbi le vendredi prochain te vendredi boobu dañoo bëgg un